tawa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 seydina muhammadin almakin wa ala alihi wa zawi ridwani wattamkin ixwat al imaani wal islaami wal ixsaani wal iraadati assalaamu aleykum wa M Media Group nuuru daarayni ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentem boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen di ñaan ngeen baal ñu xaq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu jéggal ñu suñuy rëcc-rëcc te nungul ñu suñu jaamu yàlla di jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallama di leen ziyaare ci jamono yu sell yi ñu dund rek rawatina guddi bi gi ñu jàll muy guddi gi doon fàttali ko suñu sëriñ cheikh babacar mbakke moom sëriñ Balla Coro Mbàkke fële ca jaaxal ñu ciy ndokkeel ñëpp di ñaan yàlla subhaanahu wa lépp luñ ci def ci ak jaamu yàlla rek yàlla nañu ko yàlla nungul te fulal ñu ko fajal ñu ci suñu aajo zaahir wa baatinan defal ñu ci ay ndimbal ak yërmande ak xéewal ak teraanga àdduna ak alaaxira bi jaay seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndokkeel ñëpp ñi nga xam ne ñii rek yàlla dogal ñu teew ci bés boobu ak ñi nga xam ne ñi itam amoon nañu yéene teew ca bés ba waaye tamit di sant eh, waa groupe bi eh, di ci jiital mu Ngom ñing mi nga xam ne mi mooy kilifa ak jataay bi ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne bi taxaw na ko ci ànd mbokk yi ci hadiya jooju nga xam ne ji doon nañ dajale nañ ko mu am solo loolu wax dëgg yàlla ñu jàppale ko sëriñ Abdul Ahad Mbakke ci bés boobu euh, jébbal nañ ko sëñ bi sëñ bi bëgg na ci lool kontaan na ci lool yëg na ko lool rëy na ci moom lool itam euh, moo tax wane ca mbégteem lool lool lool waaye tamit delluwaat sant waa groupe bi yëpp itam defaat ak ñaan goo xam ne gi gu ama am solo la jëmale ko ci wàllu liggéey bi nga xam ne bii moom lañu yàlla boole kon loolu yal na ko yàlla nangu te may ñu ñu teewe ko ay déwén yu bare bare bari saa bu ñëwatee rek e, ñu mën cee gën a jàpp e, jàpp bu bu ràññeeku bu kawe bu kawe kawe kawe bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ndax loolu moom suñu njariñ rek wax dëgg yàlla kilifa gi moom kon na ci lool lool lool lool yëg-yëg bi ci waa groupe bi am ba jël seeni ñaq bu feeñal ci seeni yéene daal sëñ bi yëg na ko bu baax a baax a baax waaye itam def na ci ñaan bu baax nga bu baax boo xam ne bii am nañ ci yaakaar lool yal na ko yàlla nungu di jaay Seydina Muhammad sallallahu tey ji nag xat na lool ci ñun xam naa ndax programme mu màggal boobu ñu leen wax dëgg métti na lool xaw a xat waaye nag terewul rek dañuy jéem a góorgóorlu li fi jotoro ci ay laaj rek ñu jéem cee tontu suñu kemtalaayal kàttan di siyaare mbokk yi nga xam ne yi ñëpp ñu ngi ci biir liggéey bi nag góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñëpp ñoo ngi leen di sant di ñaan yàlla subhanahu wa taala ñoo jàppale gën ñoo dëgëral gën ñoo euh, jàppal ci liggéey bi bu baax a baax ba ni nu ko bëggee rek ci muy liggéeyal xaadimu rasul daal lépp lu koy jàppandal rek maanaam loola yàlla jàppandal ñu ko ñu ngi siyaare sëriñ Aliou Badara Njaay mbal mi moom dafay laaj ne ki nga xam ne kii day julli waaye bi muy julli ñaari rakkaam yu jëkk bu ci nekk da caa fàtte ab ponk am na ponk boo xam ne bii daal fàtte na ko ci rakka bu jëkk bi waaye tamit ba mu nee ba ca beneen rakka ba ba ca top da ko fàtte waaye bi mu nee ba ci ñetteelu rakkaam ci lay doog a farleku nag ne moom kat ñaari rakkaay ya jàll kat am na benn ponk boo xam ne bii moom defu ko ca fàtte na ko ca ñaar yépp loolu moom lañ koy wax mooy comme la ñu waxan rek ci àtteeb koo xam ne kii day julli bàyyi ab ponk ci rakka su fekkee ni da ko fàttaliku ca rakka ba ca topp te demagut ca ab rukkoo am rakka boobu da koy dabaatal su fekkee ni eh, rukkoo na nag dog koo rakka boobu mu tollu moom lay remplacer rakka boobe ko jiitu jéem nag moom loolu dal na ko ci ñaari rakka kon ñaari rakka yooyu euh, faaw da koy dabaatal kon julleem gi daal nga xam ne ci ñetteelu rakka bi la fàttaliku ne ñaari rakka yu njëkk yi moom am na ponk ci bàyyi da koy dabaatal day jàpp ne kon moom mu nekk léegi moo di mooy rakkaam bu njëkk ba maanaam mu daal koy julli tegaat ci beneen rakka bi ci doog a topp doog a continuer wóyal ak julleem ndax jéem ñaar yépp da koo fàtte da caa fàtte ponk dem bay dugg ca ñetteelu rakka ba dog koy farleku bu doon benn rakka moo jàll day jàpp ne moom amagut ab waaye itam jéem ñaara jàll ba tey day jàpp ne euh, amagut ab rakka ndax ñaaree da ko war a te dabaatal ga euh, dem na ba dem ci ñetteelu rakka ba kon ñetteelu rakkam boobee na ko jàppe ne mooy benn rakkam bu jëkk mu continuer ak julleem daal di koy àggale bam mat waaw noonu la koy defe da koy dabaatal dabaatal ñaari rakkaay yi ñaareelu laajam bi mooy suñu Aliou Badara Ndiaye moom laaj xukmul wudu'i bi maa'il bahri maanaam day laaj ndoxam géej ndax mën naa jàpp wala déet mënees na ko jàppe wala déet waaw dañ ko naan yajuusu lil muslimi an yatawaddaa bi maa il bahri walaw maa wujudil maa il azbi li anna maa al bahri tahurun ay taahirun fi nafsihi mutahirun li xawlihi mutahirun li xayrihi li xawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi maa il bahri huwa tahuru maauhu alxillu maytatuhu beneen laajam bi day laaj ndax ne ne ndax ndoxam géej manees na ko jàppe waaw dañ ko naan may nañu nit ki su fekkee ne dafa nekk foo xam ne fii géej la géej dafa nekk suy jàpp su ko neexee mën naa jàpp ca ndoxam géej ma ndaxte nañu ndoxam géej maanaam dafa laab ci boppam te lu mën a laabal la maanaam ndoxam géej laab na ci boppam mën naa laabal te seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci ndoxam géej ne ndoxam géej daal mooy ndox moo xam ne mii moom dafa laab ci boppam mën a laabal waaye itam doxam géej loolu nga xam ne lii da ciy génne mu doon loo xam lii may nu ab may nañu ab jullit di ko lekk nga xam ne géej yooyu dund ci biir suñu génnee dañuy dee maanaam mel ni dañoo mbedd kenn du leen ren bi di génn ci ñoom it ci géej itam di doon loo xam ne luy mbedd la kenn du ko rendi loolu itam dagan na ñu di ko lekk maanaam ñu ñoon cee misaal lu mel ni jën yi kon daal ndoxam géej mënees na koo jàppe waaye tamit loolu nga xam ne day génn ci biir day dund ci biir géej di dund nga xam ne su génnee ci biir ndox mi day daal di dee nga xam ne medd lay doon boo koy xool ndax dañ su ko rendi loolu itam ne ne dagan na kon ndoxum géej moom itam mënees na koo jàppe beneen laajam bi ci toppat day laaj man yatazawwaju wa yamtani'u min al injab day atte day laaj ndax jul nit ki Eh, koo xam ne dafa takk soxna waaye bëggu caa am doom kooku lan mooy atte teba dañ ko naan fal injaabu min ahami maqaasidi nikaax eh, ne nañu eh, takk soxna daal buñ koy def ne na bokk na ca la ca gën a am solo mooy maanaam ñu am ca ay doom wa azamuha nafan te it ne takk soxna ngir am ca ay doom yàlla bu ko ca defalee ne ne dafa bokk ci njëriñ yi nga xam ne yii moo ca gën a màgg moo ca gën a ëpp ndax ne ne loolu lima yatarattabu alayhi min baqaayil jinsil bashari ndax ne ne euh, góor ak jigéen buñ dee takkante di ca am ay doom loolu maanaam day desal euh, askanu doomu aadama nga xam ne bi yàlla da ko sàkk tey bëgg mu yokk saa su ne ne ne di takk ay soxna di ca am ay doom maanaam day bokk ci ay njëriñam mooy day desal Euh, askanu nit woowu nga xam ne wii dafa war a continuer mu di ko yokk su ko defee dalay wax ne ne wal imtinaaw anil injaabi xataun lin nasari kon ne ne takk nag ay soxna wala soxna maanaam di ca bañ a am doom ne ne kon yow da ngay dagg euh, askan woowu nga xam ne bii maanaam mooy doomu aadama yoo xam ne dañoo war a yokku kon ne fala yajuusu li zawjayni al ittifaaqu alayhi abadan bal yajuusu mu aqatan li maslahatin yaraaha zawjaani kon ne ne lii muy laaj ne ne ndax kon dina dagan nit ki takk soxna ngir bañ jaa ab soxna am ay doom maanaam dañ ciy def ñaari attee maanaam ne bu njëkk moom mooy ñaari woy takkante yi muy góor ak jigéen moom waruñoo d'accord ñoom ñaar ci ne du nu am ay doom mukk maanaam mu doon loo xam ne li dañu koy saxal mu doon loo xam ne lu sax faw walay doon nee loolu moom duñ leen ko may maanaam bañ am doom gi duñ leen may ñu dakkoo ci ñoom ñaar ci muy sax nga xam ne dañuy sëy faw rek bañ ami doom waaye tamit beneen ate mooy mën nañ leen a may maanaam ñu bañ a am ay doom ci bañ am doom goo xam ne gi maanaam eh, day nekk loo xam ne lii dañ koy wutal waxtu woo xam ne wi ca lay yem ngir sabab yoo xam ni moo koy waral bu ko defee ñoom ñaar daal bu ñu gisee ne uh, am na lu lu loo xam ne lii da day def ak gàllankoor ci ñoom ci lu wér loo xam ne li charia nangu na ko ngir bu ñu amee doom ci jamono yooyu ñu tollu su boobaa dina ko may ñu mën a bañ a am doom waaye nag charia moom du la may mukk maanaam ngay takk soxna rek nga xam ne lañ cee jul mooy damay dama koy takk rek de waaye bëgguma cee am doom benn yoon waaye nag bu ay sabab amee yoo xam ni charia nangu na ko lu mel ni loraange nar a am ci eh, am doom ga wala yeneen i sabab yoo xam ne daal buñ ko nattee ci charia charia dina ko nangu su boobaa dina nga may nga wàññi ko walla nga def ko bañ koo am ci ay waxtu yoo xam ne dañ koy yemale nag waaye waaye du doon loo xam ne lii luy continuer la liñ ciy bañ daal mooy nga takk ko ne kii moom damay dañuy d'accord ñun ñaar ci ne maanaam du ñu am ay doom faaw loolu moom sariya du ko nangu kon laaj boobu daal loolu la fay deme beneen laajam bi te mooy bu mujj bi dafay laaj ci wàllu ak ñaan comme xeeti ñaan yi lay ñii ñaan ñaan nga xam ne nit ki day wax ci aw làmmeñam di ko di ñaan ak ñaan gi xam ne gii nit ki da koy bind mel ni da koy yónnee ci fenn maanaam diggante ñaan daal ci ñaan gi ñuy wax ci aw làmmiñ ak li nga xam ne moom lañuy bind moom lay laaj waaw ñaan moom noonu lay demee ñaan moom maanaam da koy bind wala nga wax ko ci saw làmmiñ maanaam ndaxte innamal amalu binniyaati maanaam def yépp dañ ko tënk ci yéene maanaam ki nga xam ne kii da koy ñaanal di wax ci saw làmmeñ la nga koy ñaanale maanaam da ngay am yéene da nga koy ñaanal yow te da ngay bëgg ñaan googu yàlla nangu mu mu mu dem ci moom waaye tamit ki nga xam ne kii da ngay bind ak ñaan jëmale ko ci moom booba it da nga am yéene yi da nga koy ñaanal waaye da nga koo jaarale ci bind su boobaa it soo ko bindee mel lu ko yónnee wala nga am foo koy tasaaree ñu jëmale ko fa su boobaa it ñaan googu day dem ndax yooyu yëpp day daal di tënku ca yéene jë ndax loolu moom saa boo amee rek mel na ñu ne nañu ñaanal diw nañu ñaanal diw joojo yow nga am yëg-yëgab ci sa xol am nga yéene ñaanal ko maanaam lay sa yéene mooy nga ñaanal ko ci saw làmmeñ mu doon ay wax yoo xam ne danga koy wax rek wala bu dee fu ñuy tasaaree ay luy jàll la lu mel ne ay ñaan ak ay xew-xew ak yooyu nga daal di bind sa mbind daal di koy yóbbu foofa da ngay daal di xam ne yow li tax nga bind mbind mii kat di ko mu doon ak ñaan ki ñuy ñaanal moo tax nga bind ko loolu dafa dem ba ci nit ki maanaam dina faatu sax dañuy bind ak ay ak goo xam ne gi ak ñaan lañ cey def maanaam ñu dugal ko ci biir malaan moom nga xam ne mii moom lañ koy sànge buñ koy suul da gis ne itam ak ñaan dañu koy ñaan tufli ko ci am ndox daal di koy di ko jox nit ki nga xam ne kii moom lañuy ñaanal mu di ko jëfandikoo wala bu fi jógee ñu di ko ko suñ ko sangee ba pare euh, ndox mooma ñu fexe ba mu nekk ci aw yaramam kon daal ñaan moom buñ ko waxee mooy na dellu ci yéen a jë mooy euh, dem na waaye tam boo ko bindee itam day ràññeeku ne maanaam diwa tax ngay bind ñaan gi su booba it euh, ñooy yem rek kon bind mi daal ak wax yi moom loolu moom daanaka jër te werante ñoom ñaar ñëpp ñoo yem nañ ko tënk ci yéene ji rek ndax saa koy def saa boo koy def moom am na koo ca jublu di ko defal moo xam na koo wax wala danga ko bind yeneen laaj ci topp eh, Moussa njaay moo ko fi yónnee moom itam ñu ngi koy ziyaar bu baax day laaj xukmu duxulil xamami ma hatifin fiihi mushafun day laaj ne waaw à part yi nga xam ne dañ ciy def ay kaamil maanaam dañ ci téléchargé kaamil maanaam alxuraan nekk ci biir appareil bi ndax ne na yooyu mënees na ko dugal ci biirab douze biir vanak maanaam wanag wu ñuy dugg di fa euh, dem ginnaaw kër wala di fa tuur ndox ndax mënees na dugale moo appareil boo xam ne bi dafa am euh, kaamil muy alxuraanul karim dañ ko naan fa sharcu lxaniifu yaqdi bi siyaanati zikrillaahi an mawaadi alxadari wal ëza wan najaasati dañ ne daal euh, sunu sharia bi ñuy dund maanaam moom li muy àtte mooy lépp loo xam ne dañ caa tudd turu yàlla lépp loo xam ne lii euh, lu sell la lu mel ni alxuraanul karim yooyu dane daa bëgg ñu ñoŋal ko di ko bañ a dugal ci béréb yi nga xam ne dafa taq ak béréb yoo xam ni dafa am sobe mu ne moom bu leen ca mënee bañ leen fa dugal ñu bañ faa nekk moom mooy gën ndax ne ne wan nabiyu sallallahu alayhi wa sallam kaana iza araada duxulal xalaa'i nazaa xaatamahu wa kaana naqshu xaatamihi muhammadu rasulullahi ne ne muhammad euh, lama amaam jaarom ba nga xam ne bii moom la doon takk ci baaramam muy benn jaaro ne dañ caa bindan muhammadun rasulullahi te ne ne bu daa dugg ak moom bu daa dugg ci biirab ab duus day summi jaaro boobee teg fu mu ko teg ba génn da ko jëlaat ndax dañ caa bind muhammadun rasulullahi looloo tax bu ca bu daa dugg woon day summi jaaro boobu nga xam ne bii euh, moom la yoran te yàlla subhaanahu wa taala dafay wax ne wa man yuazzim xurumaatillahi fa huwa xayrun lahu inda yàlla dafay wax ne képp koo xam ne kii daal yaa ngi góorgóorlu di màggal di sellal di ñoŋal yi nga xam ne yàlla da ko ormaal nga xam ne doo ko dugal fu am sobe doo ko yóbbu fu taq di ko sàmm daal di ko sellal ne loolu da nga cee aw yiwu baree baree bari fa boroom ne nag kon dañuy wax ci wàllu appareil boobu yor kaamil boobu dañ ne ida kaanatil ayaatu baarizatan ala shaashati fa sawaabu tarkul haatifi fil xaariji maalam taxaf alayhi min addiyaa ne nañu léegi appareil bi am bi ñu bind ab kaamil dañu ne appareil bi nga xam ne bi yow danga nga cee télécharger ab kaamil maanaam su fekkee ni danga dem ci kaamil boobu daal koy génn ci sab appareil maanaam mbind mi di feeñ maanaam mel ni danga koo ubbi daal mën nañ ko wax ba mbind mi di génn nga man koo jàng ne ne la ca gën mooy booy dugg woon nag maanaam nga bàyyi ko ca bitti su fekkee ne am nga foo ko wacc foo xam ne fii maanaam kenn du ko laal kenn du ko jël ba kere ngay génn kon su fekkee ni danga koo ubbi daal mu ñëw ci écran bi maanaam mbind mi di feeñ ci kaw écran bi maanaam euh, ñu mën koo jàng ne bu boobaa moom dañuy sipp dañuy bañ nga euh, dugale ko ci biir wala boobu waaye nag bu fekkee ni kaamil bi dafa ne ci appareil bi rek rek te demoo ci kaamil bi ubbi ko araf ya di dee feeñ itam dañ am na ñoo xam ne nañ loolu moom duggaale ko ci biir wanag waa maanaam du wàññee dara kon daal bu ñu bëggee Euh, attewu foofu daal mooy bu nu yore appareil bu ci kaamil nekkee maanaam bu nu génne kaamil ba muy feeñ ci kaw écran bi mbind mi di feeñ buñ dee dugg ci biir wanag ndax ñii dañ ne bu fekkee ni mbind mi du feeñ daal mën nga dugg ak moom waaye su mbind mi dee feeñ ci kaw écran bi nag su boobaa dañ ko dañ lay tere nga dugalaale ko ci biir ndax loolu bu fekkee ne da ngaa yor appareil bi mu yorab kaamil nga soxlaa dugg ci woon am na foo xam ne fii moom doo ko mën a teg ca bitti ndax boo ko ca tegee mën naa am ab saay-saay mën na faa jaar jël ko su boobaa lu rànge mag a mag da cay am loolu tax dañ lay tegal ñaar yi daal da ngay fexe góorgóorlu donte kaamil baa ngi ci itam booy dugg ci woon ak fexeel bul génnee ka mbindam kaamil ci kaw écran bi waaye danga koy bàyyi foofu mu nekk rek ci biir mu mel ni newu ca beneen laajam bi dafay laaj istimaaul quraan yi aw zikrullahi fil xamaam beneen biir day laaj ne waaw lan mooy àtteeb diglu alxuraan ci biirab duus wala di fa tudd yàlla ci biirab wanag ba tey bu ko defee dañ ko naa allazi nassa alayhi al makan najis boroom xam-xam daal li nga xam ne li maanaam dañ ne dañ koo sim ñoom ci wàllu woowu muy wàll wanag ak alxu lu jëm ci alxuraan borom xam-xam ne ne daal lañu sib daal mooy nga dugg ci biir wanag di jàng alxuraan walla nga di fa tudd yàlla ndax ne ne béréb boobu dafa nekk béréb boo xam ne bii béréb bu sobewu la kenn waru faa dugg dafa jàng alxuraan ca biir wala nga di fa tudd yàlla amal istimaa indal ixtisaal aw xadaa il xaajati fala xaraja fii ne ne nag su fekkee ne da dugg ci biir wanag wi euh, dégg ñuy jàng alxuraan maanaam nga di ko dégg wala leneen loo xam ne lii turu yàlla la leneen loola moom euh, mayees na la ko isa kaana al xaarijal xamaam bi nag la wax su fekkee ni euh, li yoon njàng muy mel ni ba appareil la boo xam ne bii day jàng nag alxuraan joojee dafa nekk ca biir dafa nekk ca bitti duus ba maanaam duggul ca biir wanag wa kon daal dañuy wax ne diglu gi maanaam yow boo nee ci wanag wi fekk appareil baa nga ca bitti ngay dégg njàng moomu maanaam ne loolu bañuñu ko waaye kon dañ fi dégg ne kat jéem dane bu appareil ba nekkee ca bitti kon la gën mooy boo duggee ci biir wanag bi daal kon moom bul duggaale appareil bi ci biir di diglu alxuraan ji foofu ci biir wanag wi maanaam daal alxuraan daal ak wanag moom maanaam xam naa jamono yi ak appareil moom du neex a bàyyi eh, du dëgg-dëgg waaye la ci doon gën daal mooy mu bañ a laaleeg wanag wa dara waaye nag charte yi ñuy teg muy bu dee kaamil bi bu dee njàng bi la daal bu dee diglu gi la gis nga ni la ko waxee mooy ñu jëm cee sàmmante noonu rek ndax jamono moom moo dox doxin woo xam ne bi daanaka àgg nañ ci foo xam fii ngir moytu loolu lay jafe waaye kon nañuy góorgóorlu daal suñu ko mënee moom bu nu duggee biir wala moom bu nu ubbi kaamil bi ci biir di ko xool wala ñu di ko jàng waaye buñ ko mënee itam bu nekk ci biir wanag wi di diglu alxuraan ji ci biir wala euh, ñu di ko teg ci def ci ay nopp di ko diglu waaye nag ne boo ney ca wanag wa mu nekk ca bitti ngay dégg njàng ba moom loola moom duñ la ko tere duñ la tere dillu gi su boobaa kon bu ko defee loolu mooy eh, ñaari laajam bi nga xam ne bii eh, moom la laaj moom sëñ Moussa Ndiaye beneen laajam bi ci topp mooy dane koo xam ne kii day julli juum bi mu jullee ba pare ko koo xam ne kii bokkut nag moom julli ga wax ko ne ko yow kat da ngaa ci julli gi maanaam ne loolu lan mooy atte ba ne na sañees na ko wala déet waaw loolu moom loolu dañ na haza min babi maanaam boo gisee nit ki di julli yow julli wala julli nga ba pare àndule nag julli daal mu juum su jullee ba noppi soo xamee ne dafa juum te nga xam na xam ne ni moom ko war a defaree boo ko waxee loolu am solo la lu baax la Euh, ndaxte loolu ak laay biir la boo gisee nit ki di julli mu juum julli ba pare nga ne ko yow kat yow bi nga julli am na loo bàyyi te loola nan da nga ko war a defaree nangam ak nangam lañ war a defaree loolu lu baax la lu am solo la loolu may nañ ko nit ki su ko neexee ak laay biir lay doon tey dina ci am ab yool bu baree bari te dina dimbal kooku nga xam ne kii dafa yàqante julli ga wala kon ñoo ngi dellu di ziyaare ñëpp di jégglu di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu ñu suñu jëf yu baax bi jay sayna muhammad sallallahu wa sallam ذاك يودا وهو ذاك يودا لا وهو يودا فتاوى